your channel jang anglais ci wolof tay nag dik nañ ak yeen ak euh, sen chaîne youtube ci benen bindu bu bees bindu bu aju ci possessives possessives manam li tolok momel ci anglais momel moy baat yi nga xamanteni ci ni day ni ya moom mi comme boné sama sa bosam sunu sen extra kon yoy moy yi nga xamni mo lañ fa ci àngal dañ koy xaaj ñaari xaaj dañ koy xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi day aju ci li ñu tuddee possessive adjectives nga xam ne ay possessif la yoo xam ni day jëm ci euh, maanaam sama téere boo woon sama téere my book day wuute boo ni woon téere bi sama bos la sama bos la ak sama bokkuñu lañ xol example yi ñu gis boné my your his her its our your and their ok my book gis nga my book sama téré kon my gi ma tolok sama your book sa téré yow ma jakkalo his book téré fofu non moy ki nga xam ne fi tam nekk goor okay her book moy jigen gi terem it it moy lu amul xam ni ko lañ ko waxe won ci it rek moy tolok bo bëggoon wax ni its door manam buntam comme euh, nga bëgg wax kër gi nga its door buntam our our moy sunu our house our house sunu kër your okay your dafa am ñaar your pour kenn ki nga jàkkaarlool ak your pour yéen ñi ñi ma jàkkaar loolu mooy ñoom their house ok kon yi mooy première partie bi da leen tuddee possessive adjectives maanaam ay adjectifs la xam ne dañuy taxawee taxawaay possessive dañuy taxawee ay adjectifs lañ xam te dañuy taxawee taxawaay possessive maanaam euh, boo ne maay dañ teg dara ok ñëw ci beneen partie bi mooy possessive pronouns possessive pronouns mine yours his hers, its, ours, yours and theirs ok yii tamit c'est la même chose que yi jàlloon ci mana. maana maanaam li ñu firi rek moi-même. ak mais boo ñëwee fi, boo the book is mine the book is mine téere bi sama bos la maanaam daal ni bi ba noppi bëgg a bëgg a bëgg a wéer téere bi ci yow maanaam bëgg wane moomeel nga xam ne am sa digganteeg téere bi boobaa kon door yi mine dooni the book is mine non the book is mine ok the book is yours the book is his the book is hers the book is it ok wala the door is is it ok ours ours mooy sunu sunu bos ok The house is ours, yours, the house is yours, theirs, the house is theirs. Kon yi ay pronouns ay Pronouns mo yo xamni mënu ñoo ñëw taxaw indépendamment manam ñu ñëw beru. Ok alors que bu né bu né adjectif nak moy lo xamni day wéeru ci dara Manam day melal dara. -hmm. kon lolu moy ñaar yi nga xamni moy positive adjectives ak positive pronouns ci anglais mu ñaar yu mata a ràññal ci Eh, bu ci nek rek euh grammaticalement parlant ci walu grammaire ni leen jëfandikoo day wuté waye manam yi joxe men la mhm. kon nañ ko waxat mine yours his hers its ours yours and theirs kon li la leen lon tay ci euh eh, jang anglais ci wolof li aju ci positive pronouns ak positive adjectives ci mu jël ñu ngeen jox ay exemple ngeen xol pour ràññet ñaar yi nga xamante ni si ni mooy euh, ñaari gis sànq ok my book is important my book is important the book is mine gis na my book gis nga kon day mel ne kon my moom toujours si toujours mooy jiitu tur wi nga xam ne moom nga bëgg a wér ci sa wér moom nga bëgg a ak moomeelam euh, day sës ci moom alors que mine day ñëw ginnaaw tur wi my book nga wax fii ni the book is mine his pen is blue maanaam mooy ab bigam dafa baxa baxa mooy bëla rek the pen is yours gis nga the pen is yours ok gis nga différence bi fii his pen ak the pen is yours gis nga même position bi ñoom ñaar bokk your brother your brother is kind this mobile phone is hers ok your brother is kind sa frère bi dafa baax gis nga this mobile phone is hers maanaam téléphone bi bosom la our house our house gis nga sunu kër the house is theirs the house is theirs kon noo leen di bàyyiloo xel ngeen setantal exemple bi baax a baax ngir ngeen gën cee mën a comprendre bind bi bindu tey bi bu defee ñoo ngi sàkku ci ngeen bind abonné wu ci seen site bi di engrais ci wolof donc leen sant di leen gërëm di jox di di daje ba beneen yoon thank you very much goodbye